jërëjëf kontaan naa ci yéen eh, eh eh eh man fii dama fee seetaan nawetaan ba sonn nawetaan nawetaan xewlewul tey non non damay wax pikin waa déglu waa déglu nawetaan xewle bu ñu déglu waaw nawetaan xewlewul tey moo xewle léegi moom pikin ma ko fii kenn du ma ko woon parce que fii dama fee seetaan nawetaan ba tey bul wax waxi nawetaan tey nawetaan xewul lu xew boo Niang bala ko du ma ne mbaa yirim mi ci job ma daaw ru ngéwal moo sa ndig cappaacoli démb laay ni démb ni golo wàccal gaynde yeeg eh bul tabagun kaay nga ne golo wàccal gaynde yeeg surtout Cheikh Rim du bi gaynde bi ni miras baayam dana ko loo séddu mu ne xamagu ba waaye fàdd la dama moom du golo de eh gu mag la dangil la Aziz kooku moy Aziz waaw mooy Aziz kii kon géwél yi ñoom seen biir dañu am seen géwélu bopp yaakaar na bu fekkee loolu am na kon nañ jàpp ne kii mooy géwélu Boy ñaa ndax foo gis booy Niang rek da nga koo gis ci wetam waaye ku nekk rek am ñoo xamante ne ñoom ñoo la jege di la défendre di wax ci lu baax ah di la défendre comme ni ma ko waxe waaye ak lu mën a xew ambu mu poole ngi nii moo nami di organiser mbëru Pikine bu xew rek moom ambu ambu mu bool mu ngi sa ginnaaw am am nu mu demee nii yaa ngi daw di barki Serigne Bamba dama koy duuma dama koy daal incha allah si kàttanu yàlla wasu dootul neex pare nañ bu jeexee jeex na neexalu ma ko ñaanu saraxu ma barki Serigne Bamba dama koy duuma dama koy daan barki Alxuraan dama koy duuma dama koy daan lu may bañ def lu ko góor yàlla musta def laa koy def lu ko góor yàlla musta yen laa koy yen barki Serigne Bamba coole mun na bëri mais wax ci mun na bëri le premier mun calme toi calme barki Serigne Bamba coole mun na bëri wax mun dama koy dama koy rey wallaahi wa taalaay la première ah boo ñaa day daan kii Modou Lo jël bu set wecc waaw man jóori maa ko wax man joo maa ko wax le première. man joo la. waaw jóori bu ko caaro yi. waa wala jóori. ok jóori. waaw jóori doomu nday boo ñaa waaw bu gaar waaw le première boo ñaa moo nekk roi des arènes si nii wala si naa kattanu suñu borom. ayca kon le premier janvier yàggatul nee na boo ñaa mooy nekk roi des arènes par A par B loo xam waa mais lamin ñun pikin lii lañ xam pikin da ngi nii Pikine da ngi nii jàmm lañu xam am sunu champion supporté ko le premier janvier si kàttanu yàlla Pikine na ko moom ñooy teel pétal ñooy def flambeau ñooy yóbbaale roi de sérène si kàttanu yàlla parce que suñu mbër lépp loo xamante ni ñu ngi koy séentu si mbër am na ko am na yar am na personnalité du wor respecté na SFM am na kilifa entraînement mën a bëre mën a xeex am supporter waa Pikine ñëpp génn wuy si ko mais lii lan moo des Lamine. lan moo des yow laa koy laaj. xam nga lan moo des nañ ko ñaanal jéem a yaatal xol yi te maa ngi wax sénégalais yi autorités yi autorités yi affaire billetterie yi Boy Niang am na président supporter national ku bëgg a booy ñaa boo demul si Boy Niang boo gisul bunoo jot Boy Niang gisoo Assane président supporter yaa ngi fi wala nga dem si Moustapha Seck président supporter AS Pikine mention spéciale lii Moustapha Seck da see def rôle bu rëy rëy rëy maa ngi bëgg waa Pikine nañ bàyyi xale boobu xel xale bu am ambition la parce que moom li mu gëm philosophe am mooy supporter du da ngay sor vert rouge bi rek ñëw yuuxu dem bu coow amee nga coow déedéet dafa ñëw yéegal niveau bi ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla defal sutura. jërëjëf seen site yal na leen yàlla defal jàmm. kon incha allah jërëjëf kontaan naa ci moom bu baax a baax. waa Pikine a ngi noonu waa Pikine a ngi noonu di yëngal waa Pikine a ngi noonu di yëngal Saal waa Pikine ak waa Medina ñoo dàq si boré ci ci réew mi ah yow li nga taal mbaa wóor na déet wóorul kay ah looloo baaxul nag fii kay waruñu fee taal dara luy explosé dégg nga. eh déggal ah, loolu ab pétard la rek garaawul drapeau baa ngi nii moytul zal drapeau baa ngi nii noonu di folote drapeau Pikine baa ngi nii symbole de la Pikine Boy sas baa ngi nii lii lañ koy jox lundi premier janvier mu war a jàkkaarloo ak Modou Lo le roi des arènes xam ne ba mu duggee ci làmb ba léegi mi ngi néewal doole waa Pikine waaye ndax la premier janvier bu mu njàmbi du dog loolu lundi premier janvier lay leer ñu ci ànd ak makkan borom Gaston production waa Pikine ñëw nañu en masse jàppale si seen doom seen mbokk seen rak seen xarit seen mag yokk ko confiance. lépp rek ngir le premier janvier tey boobu combat diggante Modou ak Boy Niang numéro xanaa kooku Mamadou Gueye la am na oto yu ma gis ñu dugg si noonu fii ci stade Alassane Djigo fii ci stade Alassane Djigo ci open press bi nga xamante ne Boy Niang moo koy amal nga gis sécurité bi. gars yi ñu ngi ñu ngi raxas fii pour sécurité bi bu ko defee booy ñaa mën a ñëw dugg si jàmm waaw bëgg naa ci loolu coach coach coach waaw kii mooy coach waaw waaw wax coach maa ngi lay Eh, maam Jogo Lamine maa ngi lay fay di fay mbokk internet yi nekk si Lutte TV di la jox sa waay naka moral bi coach. Lamine kontaan. waaw lu nit ñi doon laam-laamee ay ay weer ay Pikine nangam Pikine sangam je ku gis lii tey xam ne tout Pikine est derrière Boy Niang li ñu doon wax si motivation bi rek moo nekk nii ba tey lamin Lamine fi ma taxaw nii damaa fees dell. Bakk Serafal. ndax loolu du dem bay. bay bay bay stressé mbër gis nga àdduna ku wéet xam sa bopp Lamine te àdduna nañ moytu wax joo xam ne day tas kër waxuma laa gox fii benn bopp lañ kenn mënu ko xar ñu doon ñoo xam ne na comprendre nga dañoo yàgg partagé ak ñëpp yéene ñëpp jàmm moo tax bu demee nii ñun ñëpp dañoo war a boole mànkoo dem dans les si l' bi essentiel mooy ñu àndandoo dem suñu yoon mooy benn but bi Ama Baldé Boy ñaa soq ñëpp mbër yi nekk Pikine tas yaakaar tout le monde ordinateur Zambala ñun ñëpp ñu booloo maam Jogomaay ñun ñëpp maa ngi koo dem jëli ko parce que day toll fenn foo xam ne fu Pikine mës sa soxlaa si terrain bii nii maa ngi rappelé wu 96 euh, boobu ñaay lañ tudd tudduñu tudduñu AS Pikine dañoo wàcc ay trois ans. bi ñu mànkoowee dajaloo fii boobu du woon lii xeer la woon dañoo gagné yéeg première division moo tax pikin saa yu ñu mànkoowee rek lu ñu bëgg dañ koy jëli lamin lamin di la wax que ne pare nañ barki Serap pare nañ barki maam Serap ma Fall pare nañ billaahi wallaahi watallaahi pare nañ moo ko teree neex. ak lu mu bëgg moo ko tere neex. barki Serap Fall maam Serap Fall du ma si waat alaaji Socé Ndiaye mooy sam maam buur biram njéeme mooy sam maam sam maam dafa am link ak Cheikh sama waajur wu góor man si Cheikh Fall Baab góor la jokku Cheikh Fall Baab góor ak sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ay partenaire lañ man sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo moomu uuf tuddee ma boppam sam bu jigéen waa kër buur siin ku ma doofeen la du ma waxantu barki Cheikh pare nañ billaahi wallaahi wa pare nañ. li ma jaaxal ki ngeen nekk mbër mu am sañ-sañ. sañ boo koy wër ba yegg si Pikine fii la yam man kese mën naa bëreeg Modou Lo barke Serap Fall. maa duñ match nul nar maa songu. tere yàlla tere Lamine match nul. am na ñu koy wax ci combat bi Lamine match mooy waa ji delloo couronne bi pour lan muy delloo couronne bi. wax ndax mën na jeex avertissement. lu ma fii ma ne la waa ji du delloo couronne bi fii la ko jëlee woon fii la koy bàyyiwaat barke Serap Fall incha allahu rabbi fii la koy bàyyi. xoolal dafa am ñoo xam ne da leen di jëli am ñoom da ngay dajeeg ñoom am ñoo xam ne comprendre nga xam la da nga di xaar ñu ñëw làmb ji ñun mën nañ jëli mën nañ xaar mën nañ dajeeg yow làmb nag ma waxaat ko fii ñaara koy def barki Serap Fall bu ñëwee bëre ni mu ñeneen ñi ngeen gis làmb joo xam ne ay at dañ koy teg. léegi bii lan la laaj yow yaa ne dafa am làmb yoo xam ne jëli la laaj xaar daje. bii lan la tey boo demee si dëkk boo mun ci dem. bu ñuy préparer guerre dañuy jël borom bopp yi tëj leen kenn du si génne li nga xam ne moom la ñuy yóbbu du ma ko génne mais Lamine lëndi dama jox rendez-vous waa Pikine di jox waa axlu làmb di jox waxkat yeeg ñi nga xam ne dañoo bëgg a gis ku ñëw di nga gis di nga dégg barke Serafal. Seex su Modou ñëwee téye boppam. ñu bari jàpp na ne bu téye boppam làmb ji mën naa niil. ma ni xam nga dama lay wax leen bariwul téye bopp ak ñu ngi noddu téye bopp ak nanga nangama si yam su téye boppam ñu duma ko. mais Modou kenn mësu koo duma. Lamine Lamine man maay wax ak yow su téye boppam ñu duma ko. non kenn da ko mës a duma la. Lamine ñëpp xam nañ ne c'est un grand champion c'est un grand combattant mais pour avoir un bon combat il faut un grand combat combattant. maa xam nga ne ki ngay xeexal day wàcc di xeex di taxaw di xeex buy sigi day indi ay kuure. ma ne Lamine dama lay wax leen lu bariwul. kii kii du xeexkat Mame Diogo Maye du xeexkat. waaw ñun ñaay fi lañ ko fu ma suñu club ñaay waaw ñaay la tuddoon quoi mais ma daan si ko ñaay ñëw maa doon boxe kilos ñaay quoi waaw suñu club ñaay moo doon suñu club booy ñaa boxe na ñaay Lamine ñun ñun ñun ñun ah ñun ñun dama lay wax que ñun dañoo jaar boxing club Jacques Chirac di ñaanal Antoine Marie Mbengue comprendre nga Père Diouf nga xam ne moom moo nekkoon ñaay moo ñu yore woon fii di wax ne rek que ne Lamine yàggatul yàggatul nañ nañu yónni yàgg looy bañ mu yegsi bu ko jàppal bés te yegsi na ba pare Lamine altine yegsi na lamin man maa la wax bu la neexee na ma ñëpp vaar barki Seera Fall du yóbbu couronne bi parcelle dañuy reyanteeg moom waaye non teg jeexal romb naa ko si Balla Gaye laa tege woon jeexal non ma ne ma ne ma ñun ñoo ngi fii Pikine yow Pikine nga dëkk. Cheikh li nga wax Lamine dama bëgg nga déglu ma Lamine dama bëgg nga déglu ay teg jeexal ak affaire yooyu noonu yooyu amul fii xam nga lu fi am lamb la ñaari combattant ñooy bëre dañ koy wan li ñu mën dañ koy jëli lamin moom dafa ñëw jël si ko dañ koy jëli barki Serafal dañ koy jëli incha allahu rabi dañ koy jëli tegal fii la bu bañee tegal fii déggoo li ma wax Lamine tegal fii Lamine su bañee Lamine bu la ma yëngal waay Lamine. yëngal waay ko si Lamine non non Lamine yàggatul. xoolal lamin damay wax xam man dama yore ay doom yu mag yore ay sët bëgguma sax di comporté woon nee na li si YouTube bi mais souvent dafa am loo xam ne day piqué sama orgueil léegi léegi nii dafa am waa Pikine lu ñu def am lu ñu wane nga dégg booy li ñu woy fii. comprendre nga mu wóor la ne dëgg la parce que ñun fii la ñu juddoo yaroo fi màggee fi jàngee fi école defee fi lépp nit ñi xamee fi ñu soxla lamit dañ koy jëli tegal fii la duuduloo tegal fii asalaamaaleykum wa rahmatullah maam Jogomaay kay kay aywaay eh maam Jogomaay ngi waay Medoune Diouf Medoune Diouf am jël ndax tey combat bi dafay combat boo xam ne yaakaar naa ni dootu dootu wax ci wax bari wax waaye day combat boo xam ne li tax ko teg jeexal la mooy. waaw mais num Boy Niang moo des Pikine. waaw man dama jógee tournée Gambie laa jógee. démb maa ngi yow Mbour. ànd ànd ak Waly ñëw Mbour quoi Boy Niang maanaam Pikine la dëkk. Eumeu Sène Modou Lô dafa daan Eumeu Sène aller retour. daan Ama su daanee Boy Niang tas na Pikine quoi nañ waxati dëgg loolu moom ma siisuloo su daanee Boy Niang tas na Pikine maanaam Pikine dëkk la Pikine dëkk la quoi su dee Boy Niang ndaanaan la xam naa ko baax suma booy la Boy Niang suma fils la man suma fils la. waaw dañu dund quoi maam dañu dund dañu nekk maam moom dañu fanaan maam suma booy la. kon ñi naan Boy Niang ragal la amul fit day cof taw ak yow ñu xam Boy Niang kan mooy Boy Niang waaw waaw moom moom moom dafa am dafa am tacticien ak tacticien ak tacticien moom tacticien la yàlla moo ko mooñee noonu moom naturel moo ko maa ma ko doon may dara dañuy faayat maa moom suba ngoon dañuy faayat maa maam naturel dañuy faayat comme ñu doon tout tànk ba léegi ñu nekkee naa affaire mu wax ay baat nag su ma giloon si moom nii bi leex du ma ñëw su ma ko gisul woon du ma ñëw. yow mi xam Boy ndax ñeme nga Boy Niang jàkkaarloo Modou Lo xeex ak moom. waay waay waay Modou tàppale laa day day nuuru day nuuru xanaa. mais nuuru ci lay dóor daal. waay bàyyi ma wax waay bopp bi kenn ko laal. bopp të barba tër la bopp barba. waay bopp barba tër la des pour mu ñëw de. Boy Niang des pour mu ñëw bareetul. nan ko xaarandi. nan ko xaarandi. nan ko ay wax daanu ko de. booy ñang ay wax daanu ko Modou Lo ay wax daanu ko ñaari champion yoo xam ni suba nag da ngeen di da ngeen di xaar fee ca euh, euh, euh, stade bu parcelle